نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني internaute sans limite TV ñi ngi amaat mbégte ak contentement bu baax a baax di jàkkaarloo ak yéen di jàkkaarloo tamit ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Jilalul Dine ñu fa yéene si xew bu moom nag ak waxtaan ak faram-fàcceelu ci ay laaj yu bëree bari waaye balaa ñu ci dugg ci benn bu nekk rek dañ koy daal di bàyyi mu nuyoog internaute sans limite TV yi nga xamante ni tàmm nañ di ko seetaan Cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax a baax ci sans limite TV. yéen alhamdulilahi alladi laysa bi gafilin wala nawmun wala nuaas walsalaatu walsalaamu ala hada nibras afdalu nabi wa rasul bila taraddad wala waswas wala alihi wa sahabatihi alqaadati alakyas rahima allahu ashaaba rasulillah faqad laaqu kulla mararatin harra liyasila diinillahi ila kulli buqatin wa arwah humu shahiduu badran wa xaybara bacdaha wa yowma hunaynin wa dimaa'u wa tushabibu Euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñun fu ñu mënti nekk ci biir réew mi ak ci bitti réew mi di def directe ci xalifa général li di leen nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi may leen tawfiq ak taysir ak najaax mooy di doxal bàyyi leen fii ñuy doxal mission yonente bi sallallahu alayhi wa mooy di dundal alquran di ko tafsir di ko tasaare ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi ñooñu kenn di yëkkati kàddu lu dul danga leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen fi di ñaan yàlla tawfiq boobu ak taysir boobu yàlla defal ñu ko ci li nga xam ne moom mooy émission bi ñuy def fii képp ku ko déglu rek ah, yàlla def ñu jokkoo ak moom aajam fajoo ci ñun bi jaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di jàll ak yow ci li nga xamante ni moom moo di muslaay maanaam wàllum kaaraangeeg yeneen yi nga xamante ni moom lay àndal waaw alhamdulilah li nga wax rek ah, li nga xam ne moom mooy kaaraange kaaraange damay bëgg fu ma toog rek laaye ci nit yi biir joxe ci tamit leçon ndax nit sooy dem amoo kaaraange ak koo mën ci doon rek yow nit zara buy dem nga ndax yonent bi wax nañu adduwaawu silaahul muumin ñaan lu dëgg mooy armée jullit armée jullit dëgg mooy ñaanlu ñaanlu boobu soo gisee yonent bi wax ñu ko mooy nga aar sa bopp muslaay dafa am solo ci doomu aadama ndax soo toogee loo yaakaar muy tas loo sóobu rek pour mu sotti gàllankoor la loo bàyyi xel loolu du sotteeku loolu noonu li koy waral mooy cat bu bëri cat baaxut boot baaxut waaw gaaf yu bëri da koy li koy indi moom mooy cat ñaawteef yu bëri li si yóbbee moom mooy cat dugg la moo tax mais képp koo xam ne yàlla bind na ko rek bindee na ko li nga xam ne moom mooy sa am-am li nga xam ne moom nga war a am ci kaw suuf lenn moo la ko mën a daggal mooy li nga xam ne cat ak làmmiñ dugg la su boobaa loolu laa xarwa li nga ci waroon jot yëpp da siy dagg ndax yàlla bëgg bi mu bëgg doomu aadama ci misaal su la nit yi catoo bëtu la làmmiñ yi bëri ci sa yaram par yàlla di si dindi ci wërsëgu di leen jox su boobaa yow dangay am gàllankoor boo xam ne gàllankoor bu rëy la ci sa yaram ngay umu te doo xam lu la ko defal mu fekk sa yaram a tilim ci Sénégal rek ngay gis nit xëy li mot ñetti jour ñetti bés yoo xam ne yow laaloo muslaay loolu ci réew mi rek la am tukki nañ fu bi ci dëkk yi so ni Sénégal yi fonke xëy di jënd ndekki ñoom loolu la ñu fonke xëy di sangu li nga xam ne moom mooy muslaay faratu boobu noonu soo ko amee waykat bi nee na ci arab man aasha chifran min al axlaaqi wal adabi yaa fagiran walaw yamsi ala zahbi maa qimatu lmaru illa tiba jawharihi la ma hawaahu min al amwali wal nit ku ne sooy dund amoo dara ci ju baax amoo dara tamit ci li nga xam ne moom mooy yar amoo dara ci muslaay si sa yaram yow sooy dundu soo do doxee ci kaw ay doju or wala doju wurus sax yow moo noonu yow yee baa doole ki kon maa ngi woo ñëpp nañu defar seen yaram bi raxas ko de suñu amul temps bi nga xam ne toujours rek dañuy sangu muslaay loolu nañu denculu seen bopp nga xam ne am na fii sàngat boo xam dañ la koy defaral soo ko sàngoowee garanti la 14 ans ku tibb sa tànk sax soo ëfful loxom bi kooku du mooñ ci yow dara kon maa ngi woo jeunesse surtout jeunesse bi nga xam ne ëllëg ñoo yori réew mi ñooñu wala zone nga yaakaar nekk ci benn yoon di dem nit yi catula batula doo mën a àgg fen loolu li la ko si may mooy nga denc lu sa bopp raxas sa yaram aar sa bopp nga mën am li nga xam ne mooy mboolem sa bëgg-bëgg ci tënk bëggaat incha allah macha allah kàddu yi leer na naan ñu jàll ak yow ci li nga xamante ni moom moo di wàllu wut papier ñi nga xamante ni ñoo xam biir réew lañ nekk wala bitim réew di wut ay kayit nan ngay jëflante ak moom ndax jëflante gi tamit day am ab diir waaw ñaan yàlla ci kayit alhamdulilah muy kayit nga nekk ci réew mi bëgg visa pour voyage yi loolu ñu ngi ci ñaan yàlla bu baax ah, ni ki noonu tamit nga dem ci dëkk ba bëgg foofu ay kayit loolu tamit alhamdulilah ñu ngi ciy ñaan yàlla ah, ñaan yàlla ci kayit yi nag ñun amuñ ci app dinañ la si ñaanal mais duñ la wax temps nangam ngay gis sa résultat loolu mënuñ la ko garantil mais ñun daal dinañ la si ñaanal li nga xam ni mooy juróom-ñaari fan lañ lay defaral li lay defaral te mosuñ ci am mosul diire li nga xam ne ñu defal la ko sept jours ci diggante sept jours yooyu luy tak ñetti fan te oowoo ñu nga ne ñu alhamdulilah rabbil mu gis nañu yoon bi wala yàlla sottil na mbir yi ndax yàlla dañ koy ñaan rek duñ nekk fii di ko force mais ci li nga xam ne moom la ñu yor fii di ko si def alhamdulilah biñ ci dalee dugg ba léegi kenn mosuñu see jëflante kenn ba mu ñu wax ñu ne nangam gi suñ nangam kuñ si jëflante ak yor rek dinañ jëflante ak moom ba dana dem indi ñeneen te ci nit nga gis fa dara rek soo ñemee dugal foofu sa xarit walla sa mbokk fa la nga fa gis dalaa amal njëriñ incha allah kon ñun kayit ci loolu lañ ci yëngoo ci loolu lañ ci ñaane yàlla kayit bu mënti doon nag muy kayitu kër kayit bu am coow kayitu papier muy passeport muy sax euh, li nga xam ne moom mooy permis oto yi sax ñun dañ ci ñaan yàlla bu baax a baax pour nga mën cee gaaw a am incha allahu rabbi wasalaam macha allah yaakaar naa kàddu yi leer na naññ waaye rek dafa am feebar boo xamante ni ñu gën ko wooye ñu gën koo xam ci impuissance sexuelle olof di ko wooyee li nga xamante ni moom moo di ngóora maanaam wàllum tële ah, mu nekk feebar boo xamante ni dafa sonal askan wi bu baax a baax te yow Cheikh Jilalu Dim yor nga ci ay saafara yu mucc ayib yoo xamante ni askan wi da leen koy faral di baaxee ñu ciy gis seen bopp bu baax a baax. alhamdulilah loolu ñu ngi ci yëngu bu baax moom tamit li may wax rek lii yëpp dañ koy sant yàlla. ndax saa su ne rek feebar boobu nga xam ne mooy ñàkk am kattan wala nga amoon kattan mu dem ba deñ amatoo dara mënatoo dara saa su ne rek nit mu ci oo di ñu santal yàlla di ñu sant ñu koy santal yàlla loolu nag ngeneel la dalika fadlullahi yutihi man yashaau wallahu zul fadlul azim kon loolu du ñu def dara lu dul santeeku yàlla bu baax a baax euh, ki nga xam ne kattanam defa wàññeeku mu amoon kattan kattanam wàññeeku am na sax ay kàddu yoo xam ne dañ ko koy jox dañ ko koy wax mu wax ko mu yëg kattanam googu te loolu su boobaa dafay sax loolu yàlla may nañu ko am na it yoo xam ne ay façon yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko si traité ndax kattan nit soo xesee ba tàkk doomu jàmbur indi ko foofu amatoo kattan googu rek su boobaa loolu àq la te maa ngi ci oo ñëpp koo xam ne am nga feebar boobu rek soo jokkoowee ak ñun incha allah te judduwaale woo ko danañ la ko traité ci diiraa bu gàtt incha allahu rabbi alhamdulillah macha allah internaute sans limite TV ñu fàttali na rek ñoo ngi seq waxtaan ak Cheikh Jilaluddin numéro téléphone am nag 77 la 841 25 26 77 841 25 26 pour képp koo xamante nii rek lim fi soxo lim fi wax soxal na la mu ni moo xam wàllum seet la wàllum nopp la wàllum lijjanti papier ak li nga xamante ni feebar la muy impuissance sexuelle maanaam feebaru tëlee ngóor euh, loolu noonu yëpp moom am na ci ay saafara euh, moom nak ku ko woo ci numéro téléphone yooyu bu soobee yàlla jokkoo euh, te bu baax a baax bis boo leen jokkoo sa sa sa jàngoro daa dina saafara bu baax a baax ba tey rek ji Jilaanul Diin dañuy jàll ci laaj bi mu mel ni rek da nga yor ab jaaro boo xamante ni euh, jaaro bu doy waar la jaaro bu kéemaane boo xamante ni da nga koy faral di baaxee askan wi ñu ciy gis seen bopp bu baax a baax jaaro boobu lan lay kaaraange lan lay euh, wattu ci doomu aadama ba nit ñi di ko wut si ci yow waaw alhamdulilah li ma la wax rek barki Demba am na ku ñuy dëgganteel ku ma oo mu ne ma jaaro yi de sëriñ bu ma seetaan daf may jaaro ma ne ko déedéet jaaro yu bariwut coow li moo bari rek ak wax yi mais jaaro moom ku xam jaaro am na benn jaaro ñun bi ñuy defal ñetti mbir yi la la indal mooy fakkale fa ni jaaro bi soo ko takkee benn bi li njëkk mooy aar la dana la aar du la yóbbu doo dem soo takkee jaaro bi doo dem foo xam ne loraange day am foofu wala da nga fay am gàcc jaaro gi du la yóbbu foofu soo ko takkee te ñun jaaro bi ñu yor chaque ajjuma rek su boobaa da nga gis mu tilim leen dem lool dañ koy raxasaat fompaat kon loolu mooy làmmiñ ak bët yi li nga xam ne mu ngi daj ak yow te dañ ci boole ndax nit soo ko aaree ba pare mayoo ko li nga xam ne moom mooy ubbi yaram bi su boobaa dafay am li nga xam ne moom mooy gàllankoor loolu dañ koy lor kaaraange gu bëri day um nit ñu bëri ñu ngi may nit yi kaaraange ñu am ko mu fekk leen di indil gàllankoor day ñuy umu duñu mën soobu dara dox waaye tamit ku leen xëyee yàlla xëyee ko mais li baax mooy nga am muslaay ba pare di mos waaye itam di mosle yooyu noonu da cee am njëriñ lool ni ki jaara boobu ñetti mbir yi lay def comme ni ma la ko waxee dañ la si aar ubbil la ci say buntu wërsëg ndax ubbi buntu wërsëg ñu bëri dañ euh, war nañ see leeral ubbi buntu wërsëg mooy ne sa wërsëg bi nga xam ne moom la la yàlla binde foo mënti nekk da koy jot waaye ci ni nga koy jotee am na lu koy yóbbu am na lu koy yóbbu koo wax nag mu ne nit lu nekk ci wërsëgam rek da koy jot naamu loolu dëgg la waaye loolu waxin dëgg la dafa dafa dafa laaj nga dëgg maanaa bi li mu sol lu bari na trop ki noonu tamit dañuy def jaaro yoo xam ne jaaro bi bayra la ak wërsëg ak ubbeeku ak ngay dem di xëccoo dara boo ko see am ndam loolu tamit dañ ciy def ay jaaro wala nga sol ko foo tël la ñu ne yaa ngoog waaye itam koo jëflante xamewaat jëflante ak yow mu fekk doo ci am benn gàcce cat ak lammiñ tamit du moñ ci yow loolu dara ci jaaro yooyu la ñuy yëngu ci ixtisaar ci gàttal macha allah ñu daal di koy jeexee ak actualité li nga xamante ni xew na ci réew mi ñu daal di koy ràññee fa li nga xamante ni moom moo di ca màggalu ko Touba mu jur coow nag ci communauté Mouride bi ak euh, képp koo xamante ni rek euh, jullit nga fii nii ci réew mu Sénégal mu nekk loo xamante ni Marichou moom moo ko def ñëpp di ko ñaawlu euh, taxaw ci sorol ba daal di def ab snap accompagne ko ak li nga xamante ni moom moo di ab woyu Carlou di ñu bëri génn ci ñii di dal ci kawam ñeneen ñi naan dafa juum ñii di ko défendre ñu bëggoon xam rek yow sa gis-gis ci mbir moomu noonu. waaw euh, xam nga jumaa ji la yéeg wala jàkk bi moom li yàlla wax ci alquran rek wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahda foofu tooñ na fa yàlla def na tamit loo xam ne lu ñu sibla loo xam ne benn jullit fu monti nekk ci àddina bi du ko rafetlu te loolu gàcc la ci senegal kon ngam ñaawlu euh, juumte na te baalu na rek nañ ko baal yàlla sax yàlla moom soo ko tooñee rek soo ko baaloo mu baal la kon baalu na tooñ na ñu bëree bëri naqarloon na xol ñu bëree bari waaye su bàlloo rek parce que man xawma ko waaye su bàlloo rek nañ ko baal nga xamee ne foofu noonu waykat bi ne wa maa ubarri'u nafsi innani basarun ashu wa uxtiu maa lam yaxmini qadaru wala tara uzran aw la bi di zalali euh, nit ku dul juum amut képp koo xam ne gis nga ko mu juum rek xoolal na yow bés mën nga juum wala bés ñëw ñu juum kon soo juumee rek baalul nga xam euh, te waaye soo tuubee ba baalu tamit na nga fexe bul ci delluwaat loolu noonu yëpp ay coono la yéeg àddina la ak ci sinab yi yëpp yi xew léegi mooy lor ñu bëree bëri waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmmal ko boppam aar ko ndax am naa ne ay kilifa yu bëri wax nañ ci te loolu du nekk loo xam ne lu gën ci moom la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko bi jaar rasulillahi sallallahu waaw Euh, ci lii lañu amoon ci ay kaddu yu tuuti yoo xam ne dañ koy sànni dañ ko doon waxtaanee fii di ko waxtaanee ak umma islami bi di ñaan yàlla képp koo xam ne yàlla boole nañu ak moom aajom fajoo ci ñun di nuyu mbooleem sopp yi nga xam ne ñu ngi ñuy jokkoo ak ñun fii ba ñu ngi nekk Amérique ak ci Europe yëpp ñu ngi jokkoo ak ñun ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla tawfiq ak taysir di ko ñaan yàlla defal ñu ko comme niñ ko tàmbalee woon di nuyu sax Moustapha ak Abdou yéen ñëpp nuyu nañ leen walhamdu awalu daawaana wa axiruha walhamdulillahi min xiinin ilaa hiin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا